alors euh, nous sommes tey jile météo bi duñ ci mën a ànd ak yéen certainement vous allez retrouver Oumé Samb plus tard euh, incha allah euh, tey jile nag euh, Moussa Mané euh, du ñu wax tey fi ñu jëm Moussa ndax bu ñu ko waxee rek ñëpp xam ko daanaka Moussa maane maa ngi lay nuyu di la ziar tey Moussa fan la ñuy ànd ak yow tey. maa ngi lay fay euh, maa ngi nuy waale ñi nga nekkal ci plateau bi yëpp tey nag ñu ngi fii nga xam ne ni moom mooy place de l'indépendance place de l'indépendance nag ku ko dégg sa xel ci li muy njëkk dem mooy Dakar Dakar lañ nekk tey ci rubrique bi nga xam ne moom mooy de quoi est-il le nom jéem a laaj population bi ndax xam nañ fan la turu dakaar cosaanoo noonu la ñuy def dem tàllal leen suñu micro jéem a waxtaan ak ñoom xool ba xam xam nañ histoire u Ndakaaru tuuti topp sant Mamadou Ba ñëw war ngaa mun a xam histoire Dakar turu dakaar fan la cosaanu. waaw bon en fait bon ñun dañ koy dégg rek d'après li ñuy wax école yooyu quoi ak discussion entre copains yooyu quoi waaw loolu kese moo bon information rek lañ ciy xam mais du ay. comme lan clair quoi information yooyu. bon en fait dañuy wax ni juste que benn garab la woon bu nekkoon fii xam nga ñuy wax naan dakaar gi affaire yooyu quoi. bon noonu man histoire bi d'après bon ni ma ko déggee noonu la quoi waaw xanaa ñu continuer rek jéem a tàllal suñ micro grand yi suñu papa yi toog fii salaamaaleykum papa. waaw ñun turu Dakar lañ doon laajtee turu Dakar fan la jógee. aw ma sax xam-xam. soo intéressé aussi lu tax ñu tuddee fii Dakar. non non non wallaay. yaa ngi Dakar depuis ñaata at. bon yàgg na. depuis 2009. mais histoire du turu Dakar origine du nom Dakar mosoo see jéem a gëstu. déedéet aw ma si xam-xam wax dëgg yàlla. ok xanaa ñu laaj suñu waa ji rek moom dafa mel ni ku xam Dakar ça va tur beeg sant bi. man Samba laa tudd. Samba Sall Sall. Hmm. yaa ngi Dakar depuis combien waaw euh, man moom fii laa juddoo waaye xaw ma fi lu bari quoi. oui mais Dakar tur bi fan la jóge waaw bi nekk waa Dakar. waaw moo ma jaaxal nag <laughs> xam nga ñun dañuy judd rek dégg ñu naan Dakar Dakar ñu la wax nag fii la jógee quoi. jërëjëf ok jërëjëf. xanaa jéem a continuer ba tey rek. laaj laaj laaj Baye Fall yi moom daa mel ni day defarlu ay dàll quoi nduru nga booy Dakaaru de. <laughs> man ma booy Dakar de. Ah, fan nga. man booy Jolof la. booy Jolof yaa ngi Dakar. waaw maa ngi Dakar war nga ñëw mun a wax si histoire Dakar. Dakar ah man dëgguma Dakar bi. mais turu si dégg yow. turu Dakar. Hmm. fan la bi cosaanoo lan nga yaakaar ni lan nga faral di dégg ñu fii la jógee. saa yaa ngi may laaj lu yéeme de man Dakar daal Dakar laa xam man wax dëgg yàlla franchement def mooy pour xam Dakar tur bi fan la jógee quoi franchement kon ñoo ko déggandoo dégg ngeen na ñu jot a tàll suñ micro li nga xam ne ni moom la ñu jot a wax si histoire u ku si nekk nag joxe na version te noonee sax la ñuy dem daal di seeti ki nga xam ne ni moom mooy Cheikh Mouhamed Djimbira doon suñ personne ressource su dem waxtaan moom laaj ko ba xam moom mun nañoo wax ana fan la turu Dakar daal di jóge Dakar ñenn ñi dañu ni moom mooy dëkk raw boo déggee dëkk raw dafa yore jikko ñi nga xam ne ni ñoo ko sosoon muy lébu yi lébu yi dañu ni woon ñu ngi ñaan yàlla képp ku ñëw dakaar fekk suñu yàlla na neex ci yow ba nga fàtte fa nga jóge kon képp ku fi ñëw rek ñu jël la def la doom def la dëkkaale ba nga mujj doon ku bokk ci dëkk bi boo xoolee njoobeen ni jóge Kajoor ñoo ñëpp ñu ñëwee dakaar lañu bokk kon tur bi nga xam ne yëkkati woon nañu ko Dakar la moo doon dëkk raw beneen bi nag mën nañ ko jàppee ne tur bi mu ngi jógoon jóge woon ci daqaar ndax Dakar dafa bari woon daqaar garab la daqaar ñu ne ndakaaru tur bi toxu waaye ñuy xool référence ca garab gi nga xam ne nii moo ko sampoon te moo ko meññ ñi ne leen jal jóob ñi ne ñu dakaaru njaay mais nag comme que dañu ne olof njaay njaay bi rek ñu jël ko apparenté ko sur l' ancien l' enceinte fondateur depuis ay njaajaan njaay mais li am solo rek mooy Dakar réew la boo xam ne nii ku fi ñëw rek ñu ñu boot la li ma naan yaatu nañu mbootu ni waa Ansaar ku ñu boot botti kenn dootu la rogganti nga nekk bawol bawol nga nekk kajoor kajoor boo fi yàggee di nga mujj nekk waa Dakar Dakar dox daje la woon Dakar dëkk raw la woon loolu aussi version la kon ñoo ko déggandoo dégg ngeen li nga xam ne ne moom la Mouhamed Cheikh Djimbira daal di expliqué si origine turu Dakar mu nekk histoire bu am am solo histoire bu riche ndax képp ku dëkk Ndakaaru yaakaar naa ne lii baaxoon na si ngir nga mun a xam sax au moins fi nga nekk tur bi fan la jógee mu nekk li ñu leen indiloon si seen rubrique de quoi est-il le nom ñu leen di jox dig daje ba beneen merci beaucoup Moussa maane ak euh, Aliou mbay merci beaucoup ci de quoi est-il le très rapidement euh, Mortala dégg nañ ko Ndakaaru nag dañuy laaj ndax euh, Diop la sant wala Ndiaye des fois ñu ne Ndakaaru jël Diop des fois ne Ndakaaru mais li am solo rek mhm. mooy comme ni mu ko waxee je pense dëkku daje la mhm. dëkku daje la te je pense rubrique bi dina permettre également ñi dëkk ndakaar ñu xam seen ville nuñ ko tuddee parce que dafay souvent nit ñi dañuy soofantal fi ñu dëkk ba du ñu def ay recherche ci euh, maanaam tur bi fu mu jógee mais quand dëkk raw ak euh, garab bu Dakar mën nañu jàpp ni foofu la turu Dakar bi jógee te je pense que jàng bu bees la boo xam ni tey indi nañ ko ci euh, indi lañ ko téléspectateur yi mm-hmm. Chérif Boy Jolof devenu Boy Dakar non man kay ba léegi Boy Jolof laa mosuma <laughs> nekk Boy Dakar waaw Dakar comme ni nga ko waxee ah man euh, turu Dakar gi et mhm. puis taxawaayu lébu yi aussi muy dëkk boo xamante ni dëkk raw mhm. euh, parce que te am na fi tax quand même ñu bëri aussi jóge fan nekk ñëw ngir wët si lu loo xamante ni ko doon yóbbu mooy li ngeen doon wax centre rek ci wàllu investissement yi mhm. dem euh, def loo xamante ni quand même c'est une ville rek bu dul sénégalais yi nga xamante ni ñoo koy ñeewantal même bëri na fi trop cosmopolite ah, que am na ñoo xamante ni africain ah bëri nañ fii tamit duñ fi ñëw parce que loolu tax li leen tamit mooy stabilité bi nga xamante ni moom la ne moo ko Sénégal seulement quand même c'est une ville très très très chère. loolu moom war nañ koo xoolaat bu baax a baax ndax mm-hmm. dund gi mi ngi cher ci ndakaaru ci mm-hmm. wàllu dëkkuwaay ci wàllu xewal ci wàllu dem ak dikk te loolu voilà te loolu moom bokku ci nga xamante ni mm-hmm. dina gën a attirer ay nit surtout ñu néew doole